ci préparation inauguration jumaay Massalikul Jinaan bi talaata ji dëppook le 24 septembre 2019 di bés bi nga xam ne moom lañ jagleel soxna Jaara Buso bi ñu xëyee amal nañ fi ay waxtaan ay activités yu yaatoo yaatu ci teewaayu soxna yu takk lool ngir berndeel mboolem ñi fi ñëw soxna Jaara Mbàkke moom Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu ànd kook mboolem fédération daayira Maam Jaara yi ñu waajal bernde yu takku lool ngir képp koo xam ne ñëw na fi bañ a ci wàllum bernde waaye it kilifa yi nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi doon gan ñooñu ñëpp ñu yóbbu leen seeni bernde mu nekk taxawaay boo xamante ni amal na ko ci wàccaayu inauguration bi rawatina bés bi nga xam ne moom lañ jagleel maamam ja di soxna Mariama Bousso Diaratullaah bismillah igsinil ak daara أدار يا الله سعي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى مالك وعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مرتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أنت لي مراسي أرجو برامتي Bassirou Ngom la ndongo lu ñuy wax Bassirou Ngom ah, di sant yàlla bu baax bim ñu boolee ci liggéey bu mel nii di sant sëñ bu wér ndax bés bii nu am eh, ci mbaaxam lañ ko amee bëgg noo dimbali rek moo moo sababit maanaam liggéey bu rëy nii nu fekke ko ñi ngi sant yàlla bu baax ci fekke giñ ko fekkee ak mën cee ñaq te di ñaan yàlla sunu borom lépp lu nu def rek yàlla na dëppook mbégum sëñ Tuubaa di sant it bu waax a baax soxna si nga xam ni mooy soxna Mariama Bousso mu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaanal mu Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ñaanal it bépp kilifa sëñ Cheikh Jëmb Fall di ñaanal ñëpp di sant bu baax a baax soxna si nga xam ni moo nu boole ci liggéey bu kawe nii liggéey bu rëy nii di ñaan yàlla na ko yàgg man taalibe yi yàgg koo ànd ak moom te lépp luñ ci def rek mu dëppook ngërëmal sëñ Tuubaa ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan lii moom yàlla na sax yàlla nañ yàgg di ko def suñu borom dool dëpp ñu kàttan dëpp ñu wér ba lépp lu ñu yéene ñu mën ko ci def barke borom waa wi comme comme comme ni ngeen ko gisee rek maanaam soxna si ci mbaaxam dafa am confédération daayira Maam Jaara confédération daayira Maam Jaara yi ku ci nekk rek am na ci ñoo xam ne danoo maase bokk benn waañ def ko ñeneen ñiit ñi nga xam ni fa ñu nekk dafa xaw a dafa xaw a jege lool ñu amoon ndigal ci togg fa nu ne ñu boole togg yi indi ko bu ñëwee nag togg yi ngeen gis nii moom lañ maase di séddale fépp bi ñëpp toggee dañoo boole lépp rek muy benn ñu maase séddale ko ci kilifa yi ak jëm yi nga xam ne ñoo bokk teew ci barab bi loolu daal mooy liggéey bi nga xam ne moom la joxe woon ndigal yàlla dogal na doomu aadama yi jëfe nañ ko noo xam ne kawe na njort lool di ñaan rek yàlla na dëppook mbégam ndax moom la ñuy liggéeyal ndax lii lépp lu ñuy def soxna jaara moo ko waral waa moom it moom lañ ciy dàq ak mbégam kon yàlla nañ ko ci am di ñaan moom it yàlla féq fan wi dëgëral ko lool ba lépp lu mu yéene mën ko yegg. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di am mbégte ci bis bi nga xamante ne nii dañ ko jagleel soxna Jaaratullaay Mariama Bousso eh, nga xam ni eh, li wolof yi di wax naan lëg bu lekkee alam na ko gërëme coy loolu mooy li nga xam ne mooy li wér lu waay am ci Cheikhul Khadim war na ko sant yàlla sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye sant ci soxna jaar jaaratullaahi Mariam Bousso lii nag fédération soxna jaar yi nekk ci dëkk bi ñoo dajaloo àndandoo ñëw fekk soxna jaaram Seex taxa fii jël seen pas-pas seen man-man ak seen lépp boole ko mu doon lenn ñu ànd liggéeyal soxna si ngir jébal ko waajuramu tedd wa li nga xamante ni nii nag mooy añi Seex Muntaxa yi mi ngi nii di dem ak añi Seex Isaa yi ak añi Seex euh, euh, sëriñam ak añ yi nga xam ne mi ngi jëm ci sëñ Bassirou ibnu Serigne Abdou Khadir añ yi jëm ci maam Thierno ak soxna Bali waaye daal li wér te mooy mboolem fédération soxna jaar yi danoo àndandoo ci gannaaw soxna si kenn ku ci nekk fa nga ne togg nga xéewal indi maa ngi jël sa addiye indil soxna si ñu àndandoo nekk wenn waañ nekk benn togg ngir jébbal ko Cheikhul Khadim ak mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla na yàlla yàggal taxawaay soxna si yàlla ko yàlla yàggal suñu kanam sama tur man Baye Gueye laa tudd di yore fédération sëñ Mbacke Madina Cheikh Moustapha Bachir mi nga xamante ni moo soxna si ñoo bokk lépp Cheikh Moustapha ak sëñ Mountakha benn la rek la ñu kon allahumma salli ala sayyidina wa anta al aziz la fi aqibi isati isan yuqal lidul takrim ya allah ajbarta li imakal jabaaru doon li xam kulan daa bilansi lixtarta yàllaaw ajbartali inaakal jabaaru doon li xaal kulan daa bilansi lixtarta yàllaaw